léegi tamxarit euh, damay wax pour tamxarit euh, euh, li fi xew amna li wax yu bare bare bare bare li ñu wax ñi dañ lay wax ne moy début at c'est moy premier début at musulman mais lolu début année kay dañ koy feete premier jour mais duñu xaar 10e jour de wax fofu waxu at kon lolu amul de deuxième ba dañ leen di wax ne non yenent bi dafa daan dem ci mbedd a Makka mu daje ak benn juif fekk kooku mu ngi woor mu laaj ko lu tax nga woor kooku nee ne jour bi la Moussa euh, gagné woon Firawn kon ñun loolu moo tax ñu ngi koy woor ñoom ñuy wax ne yenent bi mu ne ah kon ñun ñoo gën a jege Moussa yéen kon ñun tamit dinañ ko woor mais loolu c'est faux du deug lolou musul am parce que nit ñi aussi dañuy étudier question yi même juif yi gëmuñu lolou déjà su des deug la won kon juif yi nañ ko wor jour Bob. ko lolou amul te bi mom yalla daf ko may xam-xam mu xam le passé présent et le futur nan lay togué bi nga xamné ne e année année bi nga xamné mom lay gañu ba mu ak juif mu xamné ne mo koy la Euh, gàññe woon Firawna loolu xel dina ko nangu xel du nangu loolu li ci woor mooy imaamu Sadiq alayhi salaam moom doomu yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa na quand on est frappé par un malheur on ne gêne pas su mënu moo ko wax bu baax ci wolof ku am dëj ku am musiba kooku warul woor kon woor bi ñuy wax fii ci ashura bi ci tamxarit bi amul fenn li fi am mooy rey nañu do doomi yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam imaam Hussein ak waa këram yëpp jour boobu bu ñu jëlee bopp al Hussein dagg ko def ko ci plateau indil ko buur bu ree bu tudd Yazid bu ñu ko indee dafa xool bopp Hussein bi mu jël yat mu ngi yore beneen mu door bëñ Hussein yi mu door ko après mu sujud mu ne gañe nañu fayu nañu yonent bi ci suñu maam yi ñu reyoon Badr ak Uhud ak Hunayn kon mu ne jour bi à partir d'aujourd'hui c'est un jour de fête loolu moo tax tamxarit mu nekk jour de fête comme ñooñu ñoo indi l'islam ci ñun loolu moo tax ñun tamit ñu copier loolu parce que en réalité l'islam kañ la ñëw Afrique l'islam est venu en Afrique euh, à l'époque des Omeyyades Muawiya ki mu yonne woon mu indi lislaam Afrique mu ngi tudd Okbatab na Naafe dafa ànd ak vingt cinq mille soldats ñëw fu ñuy wax Barika côté Égypte ñëw Tunis Kayrawaan ñëw ba ñoo ñu ñoo indi l'islam ci Afrique te kooku Okbatab na Naafe bés bu ñu àndee bopp Imam Hussein teg ko ci kanam Yazid fekk mu ngi toog ci wetu Yazid kon ñi nga xam ne noonu yenent bi ak waa këram ñi nga xam ne ñoo rey waa kër yenent bi ñoom ñoo ñu indil islam loolu moo tax ñu donn feet euh, tamxarit taajaboon ak yooyu taajaboon ci boppam kalima bi moo bi taajaboon du wala taajaboon mooy taajaboon en arabe est-ce que vous êtes étonné pourquoi parce que quand naa am ne bu ñu indee bopp euh, imam Hussein nit ñi dañuy waaru tiit Yazid mu ne leen ataajaboon loolu la jóge kon euh, li xew Karbala le parce que euh, dañu bi a ci place bi pour wax ne fête fête c'est un c'est un jour de deuil et de tristesse pour nous non puis qui li lii moom du mauvaise interprétation mais bi kii Yazid moom dafa nekkoon ivrogne c'était pas quelqu'un qui était euh, euh, c'était euh, c'était un je ne sais pas comment on appelle ça mais c'était c'était un sanguinaire par l'imam Hussein la deuxième année, il a envoyé une armée à Médine. Il a pratiquement tué tous les hommes. Et, cette année-là, ils ont dit presque toutes les femmes qui pouvaient donner des enfants ont eu des enfants euh, qui, sont nés de l'armée de Yazid. La troisième année, il est mort pendant que son armée est en train de, de brûler la Kaaba il faut que ñu dellu il faut que ñu dellu ñu defar parce que suñu mag yi fi nekkoon si suñu maam yi fi si nous suñu nitu yàlla yi fi nekkoon ñu baax la woon mais ñoom dañu doon jëfandikoo ak li ñu comme information man sama papa talibé am yëpp ko wax né ko sama papa du dina dina dinañ la eh, indil fitna mais man sama papa musul génn dafa génn Mauritanie ñëw Casamance toog foofu foofu laa judd musul génn foofu man dem naa ba Chine dem naa ba États-Unis dem naa eh, Australie dem naa partout dans le monde aujourd'hui j'ai internet j'ai Google j'ai tout ce qu'il faut eh, mais mon père n'avait pas ces informations donc ñun lu ñu war a def mooy bàyyi li ñuy sacraliser suñu suñu nos guides parce que ñoom ci seen bopp ba ba ñu de yàlla jëlaat leen musuñu bàyyi di gestu dañ doon gestu toujours te chaque père veut que son fils son fils euh, apprenne le dépasse. voilà le dépasse donc nous nous devons ñu wara jël li nga xamné lu baax li nga xamné mom lañu la ñu bayil ñun suñu magay ñu téye ko bu baax leneen lu baax li ñu gis encore fale ñu ñëw indi ko tek ko ci lool pour ñu dem kanam mais mënuñu dem fixé wu loolu fixé wu ci ñoom lu ñu doon def rek wax ne loolu rek mooy dëgg man bi ma de commencé wax ni dafa am sama benn nijaay war ngeen ko xam nekkoon naa ministre fii ay yàlla na ko yaram daya mais dafa ñëw fi benn bés fii ci bureau bi mu ne ma Chérif man da neen nit ñi nee nañu yow si it nga ak yooyu dama bëggoon vraiment nga bàyyi li nga dellu ci li nga xam ne sa papa ci loolu la nekkoon ko ma ne ko amul benn problème ñun ñaar yëpp nañu ko def rek yow da ngay démissionné léegi bañ a nekk ministre nga dem parce que da nga fekk sa papa mu ngi béy tool ah waaw man ma dellu ma ma jàngale alquran fale loolu laa fekk sama papa muy def walla surtout tout mu noppi ma noppi